noonu gis nga ko nee mi ngi ci biir groupe bi dégg nga audio yi noonu yëfu politique la doomu xaraam yu mag lan tey nag sama wax du bëri ndax li ma indi ci information dafa bëri suba laay gën a informé Abdoulaye Sylla moomu dinaa dugg ci ay mbiram moom tamit wax leen mooy kan ak fan la bokk affaire la bokk dëgg la mais lim jot a def ci réew mi laa leen di wax ndax jot naa sàcc ndax jot naa rey nit lépp laa leen di wax du ma bàyyi dara influenceur yu jigéen yi ñu bëri ngi woote di jooy Mignone Girly mi ngi woote di jooy Fatima Cissé ñoom ñëpp a ngi naan nan leen baal nan leen jéggal mais du ma jéggal kenn benn par benn lay lekk seen lëfal ndey bu ngeen bëggee ma bàyyi leen damaa bëgg mu leer xaalisu askan bi ngeen ne pour tantas ngeen di signé pour askan bi cinquante cinquante day jàppale entreprise bi signé ay contrat cent mille francs par semaine génnee leen xaalis bi wax contrat yi ku nekk ñaata nga fayee fayeeku teg ko ci digg ci digg taabal ji nga ne jeunesse bi lii la ci am ku ne génnee xaalis teg ñu jox ko néew doole yi ñi nekk Sénégal seen loxo euh, jotewul seen ginnaaw ma baal leen mais tant que xaalis bi tegu leen ko ci taabal ji kat ndayem génnee li jeunesse bi am chaque jour dinaa raax seen lëfal day kooku man maa leen ko wax mbaa leer na loolu laa bëgg mu leer ci bopp sénégalais yi du dëgg waaw loolu mooy tax ma bàyyi leen waaw kay léegi nag tey sama wax du bëri damay bàyyi sama xarit yi ñu wax ngeen participer débat bi Baby Liza maa ngi lay bëggee wax leen li nekk ci débat bi waaw tey sama wax du bëri Asel maa ngi lay déglu. yow xam la may sa problème yow. waxal. Adama ñun xam la may sa problème da ngay da ngay def respect. ñu respecté la quoi yaa ngi comprendre. waaw léegi lan moo tax léegi ma laaj la. waaw. ok léegi yow. dañoo fay xaalis bu bëri. ñu lekk def ndànk nag def ndànk ma laaj la. maanaam yow contrat bi ñaata la leen la la fay yow. loolu soo nekk ci sa waa léegi xaalis bi leen fay nag laa bëgg pour xam nga da ngeen di liggéey pour service bi da ngeen naan da ngeen am pourcentage service bi am pourcentage léegi pourcentage service bi bëgg ngeen teg ko ci taabal ji ma bàyyi affaire bi mu sedd. taabal bi lan la ñuy teg loolu lu ñu war a lekk la lekk nañ ko. mu ngi si ñun ñu ngi koy lekk nànk-nànk. mais kon service bi amu ci dara. jeunesse bi yow amoo si lëfal ndeyam yow mii di wax. amoo si lëfal ndeyam non waa jeunesse bi ngeen ne da ngeen koy jàppale. amuñu jeunesse bi ñu jàppale ñun ñoo koy jàppale suñu boobu Adamo yaa ngi dégg léegi leen di fay daal yéen a koy lekk yéen kese ñooy lekk ndey loo si sa data nday ci suuf sa kanam gi ne la fu kaña ñii ay doomu xaraam lan doomu xaj sa ngaam yu dugg yi di mel ne porte oto yow moom li la fay moom xam na sa tuunu yaay lay mujj fa lay reese ñii ñoo gën a katt seen nday ci li yàlla sàkk gis ngeen dégg ngeen doomu xaraam ngeen ñi déglu ngeen ñi yéen est dina dinaa ësa ësal dinaa ësasalsale sa dëjëw nday wekki sa radiateuru nday daxas ko ba mu set ma monté waat ko ësal dina ës ësee sa tuunu ndey sa data yaay laay jël ràcc ko yow ësal mii lu ma ko bëgg wax xeeb ko muy mel ne béy wu indisposé yaa katt sa ndey kon xanaa jeunesse bi amuñu ci job ndayam du ngeen bàyyi duul moo tax ma wax leen ko ñii nan bàyyi fen nan teg contrat yi ci taabal ji ñi ñoo gën a katt seen data ndey ci lu yàlla sàkk non man Sénégal du dem non Sénégal du réew. Khadija dégg nga loolu dégg nga booy. yow Adama bi limay bi li may wax ñi dañoo réew amuñu benn respect yéen ngeen daanu ba juutu Adama yaa fi ne yaa ko fi leeral mu taxaw naan lekk nañ ko yoon kii di eh, xam nga damay bañ a saaga mais ki ëzëleel adama duma saaga waaye loo saaga ma eme ko. loo teg ci taabu ma eme ñii dañoo yabaati fu mu ne nii dañoo rus man su ma doon yow sax dootoo waxati ak ñoom di leen may bës xam nga ni ëzël mii kenn xamu ko woon xamu fu mu toj ngaamam yu ngeer yi mu war jël ci xaalis bi jënd ci supp jënd ci niñ koy waxatee sunguf naan suqaleeku mu naan lekk nañ ko. aji maas a ngi nii de ci biir groupe bi la bokk te day jàppale Ablaye Sylla aji maas ñii dañoo jeexal dañuy jeexal xol sax. aji maasa ñi mi ngi demandé de. yow xaalis de visage. kooku nag ko xaalis bi mu def ci soin de visage raxas kanamam gi te jënd ci ay yel am a suqaleeku. moo gën mu naan lekk naan ko ñàkk. maintenant loo wax ci ñi ci doomu xaram yi. ñii ay doomu kaña lañ damaa xamul noo yégalee genre ñii ay vagabond yi noo leen di yégalee ci sa ci sa life Adamo. kii kii nga xamante ni buuju maan la kii boo gisee sax xam daa xiif kii ba mu gëjee lekk kenn xamul ngaamam yu départ yi nga yëgal ko sa laay bi Abdoulaye lay jàppale dégg nga man faale ma la du ma weddi ma dawal sama aji maasa ngi ci groupe bi la nekk moom it ci la bokk déglu ma man ci groupe bu politique ba laa bokk j'assume mais dama la kattal sa ndey ci suuf amul loo fay xamle booy xamle nga kattal sa ndey xamle ko sa plateforme tëjal seen xel lay doon nga naan ci groupe politique bi laa bokk doomu xaraam yi jaay seen gor. a lu sa ndey. Ah, yaa bon Adama doomu xaraam ji amul lu ma lay déglu. ma wàccee sa lëfal ndey. Adama mu naan ci groupe politique balaa bokk. kattal sa ndey dem waxee ko sa plateforme. Amina Magaru Adama waaw. Adama ñoom ñi nga xamante ne ñoo bokk foofu loo leen di jëlee di leen yëgal. non non ñoom ñoo bëgg di seetaan live bi parce que duñ nelaw. non non bu ñu bu ñu téye bu leen jël yoo xam nga ne yow xam nga ne dafa leen jël waaw. ci wax añ na kepp nga leen wax nga ne dañoo muus noonu ba dem génne publicité wane ay ay train wake ay xawma ay suuf yi ñuy raakale euh, aji maas a ngi demandé rek du ma ko jëlaat Adamo waaw Adamo bu ko bu ko <laughs> am na yoo xamante ne bu leen ko may tamit. muy am lu muy expliqué. Ndaya waxal allo Ndaya. allo moo commentaire ñu ngi naan jël ko jël ko rek nga déglu ko lu muy wax. ko jëlee moom fi yéegee trop tànkeem trop tànk rek la fi jëlee. waaw looloo jël ko rek jël ko rek jël ko rek. Adamo. waaw ko nga déglu ko. su waxee. dina la wax lu tax ñuy wax déglu ko rek. ma jël aji maas ngeen ne. jël ko waaw. ko ñëpp. aji maas sarab ndaye moo tax. Adama su doon maay doo ko jël. ma jël ko wala ma bañ koo jël. bu ko jël. ñii ñu naan bu ko jël ñu naan jël ko déglu ko. Khadija ak Mina Mina bàyyi mu jël ko. mu jël ko rek bàyyi leen ko boo waxulee rek teg ci table bi Adama mu bàyyi ko mu wàcc waaw na ko jël na ko jël na ko jël rek ñu xool lu teg ci table bi xëy na moom dina leeral comme moom moo xam lépp journaliste la. vraiment na ko jël rek. boo si jël ko léegi jël maa ngi ñu ngi lay déglu. maa lay déglu maa lay non lay laaj ay question ngay ton bokkuma ci ci groupe maa maa lay laaj ay question déglu ma laa la wax. yow da nga mën a déglu ma sama plateforme la. fii sama mais boo ma dégloo dégg. waaw kay léegi man. xam nga man weddiw ma ay question man ci balaa bokk. ngay tontu mais man kenn fayu ma ñett. dama dafa yëg leen contrat yi ñu demee contrat yi booy a dugal man dama a dugal contrat yi nag kon yow looy def sa groupe ba. looy def sa groupe ba yow. nga duul ak sa yéel yi mel sa groupe ba ni ay xaste katal sa ndey suuf ñoom ñëpp dañ leen fay lii moo tax bëgguma koo jël day xaste di wax lu kenn xamul ñoom ñëpp ay contrat def ñu leen di fay mu naan ca groupe balaa bokk kenn fayuma lii tax bëgguma koo jël day duul fenkat la ah kii du wax dëgg wax naa leen ko ngeen naan ma jël ko. kii di fen dañ leen weer dañ leen weer xoolal ma ci xool moo jeex moo tax fi jóg da ngay saaga. ñii bëgguma leen a jël yéen a tax ma leen di jël ñii ay doomu xaram lan ñoom ñëpp na ki mi bopp jël ko ne woon naa la ko ma ko wax de. man maa la ko wax yow ma ne la bu ko jël. yéen a ma wax jël ko ñii jëruñoo jël. Adamo yoo xàmmee nga leen kon léegi képp ku ci bokkati bu ko jël nga bàyyi leen ay ñoom ësal ñooñu ñëpp. waaw bu leen ma wax ma jël leen man xam naa leen bu baax xam naa li may wax. kon baax na. gis nga fii bul bul jël bul jëlati ñooñu kon. képp koo xamante ni boo ko si. fi mu toll nii ñoom ñëpp ñu ngi ci live bi parce que duñu nelaw duñu mën a nelaw. maanaam man la di seetaan parce que man ngeen di déglu liste parrainage yi naroon na sàcc jox ko Ablaye la récupérer carte d'identité yi moom laa yàq fi mu toll nii Ablaye si la yónnee na ay nit pour neexal ma 10 millions ma ne ko kattal sa nday yow ak sa 10 millions dugal ko sa biir lëfal nday. loolu rek laay topp Adama. ñoom nañu déglu fi mu toll nii carte gi maa ko mën a fay. ñoom ñëpp dañoo tiit kenn ne la watul. man dañu leen di déglu di ma seetaan. Adjimas mus sa dugg sama live bi di seetaan danoo tiit. ñoom ñëpp dañ leen a jàppale ñu seetaan ñoom ñoo jël carte gi ci man la des. maa xam li ni def. ay doomu xaraam lan waaw. Adamo waaw. daa mel ni las gaa rek moo ci bokkul de las gaa gor la ban ko yónnee ba dafa muus dañ ko yónnee document bi mu xam ne lii mhm. affaire politique la mu bañ mhm. ne signé wu ko ñu tegal ko taabul xaalis comme ni ñu tegalee ay moromam mu bañ loolu las gaa jaay gor pire la ku baax waaw très bien bokkut sax kon dañuy financé rek pourquoi xale yi di jël yoonu Nicaragua bi. partagé leen jël xale yi xale xale yi di dem si Nicaragua bi aéroport soo demee chaque jour mu ngi fees pourquoi dafa laa wu ñu ay liggéey jàpp xale xale yooyu kar leen jox leen ay liggéey mais ñu bàyyi ba carte ki dëpp ku nekk nekk fii naan non c'est-à-dire. ma ne lii ba ma commencé ban ko commencé di def yàgg de chaque jour gars yi dañuy dugg naan leen luy signifié luy signifié luy ñu bañ bañ leen ko wax ba ma commencé katt seen ndey ñi ngi jëfaru fu nekk di def vidéo te leen di expliqué tout nu ndeyam leeru ci maa leen di mm-hmm. leeralal Ablaye Sylla mooy politique candidat 2024 jël pour ngeen liggéey seen carte dañ leen di sàcc ko defee ko ay parrainage jox leen ko liggéey ba la fay def du bëri loolu ñorul leen liggéey bi ngeen liggéey li leen ci ñor mooy pièce d'identité bi ngeen di defal pour seen nombre de parrainage man ay doomu xaraam lan jënd nañ leen signé leen cent mille francs par jour groupe mardi bi yéen ban groupe ngeen bokk baa yéen bokk ngeen ci groupe yi mardi ak wala mardi nga ñoom di jë ñoom ñooy mardi ñooñu mardi lan kan moo bokk vendredi doomu xaraam yi ku nekk sa groupe ba ngay tuddee suba xam naa groupe link groupe link groupe link <laughs> xasaar daa tëj ay commentaire am de. ñëpp ñëpp a tëj c'est la première fois ci histoire. comme du new lu mu tuddati Magdi Magdi. yow kii Adama ni ngay def nii nii teppil seen lëfal ndey ñoom ñi garaaw waay booy ndaw yi ay ñoom zëzël zëzël ñooñu lañ leen yërëm am rek ñooñu ñu wax daw yaram nag nee nañ waaye Ezel nag kat ndeyam nga naan eh, eh, kuy wax loolu bouclier xaw ma bouclier xaw ma yow yaa wax Ezel nee na yoruñu luñ jëndee lañ yaakaar <laughs> mais mais bouclier am lu ma jaaxal gars yi dañoo tëj seen commentaire rek ba pare Adamo ba pare si dëgg moo la ah dégloonte leen. nañu wax après coro ñëw dégloonte leen. non non man moom man combat bi man combat man ay zëzër sax man mag gi man mag gi man mag gi mi nga xam ni lu waaye wax mu dugg ci réewoon lammiñ suñu waxee mag yi sàll mag di dugg tontu waali bala ko sekk bu demee fee mag di naan ay waali lim solaat yëre bi yëre kii laak lu ne mu gëmloo askan loo xam du dëgg mag gi nee naa 17 heures lay yeewu appartement la yor katt jigéen ñi la fi nekk di ëmbal 17 heures la yeewu toog ci commentaire yi di dëkk bi doxul ma loolu moo metti bu ñu naan daan jeunesse bi dëkk bi doxul te ñoom dëkk bi mu ngi dox ci ñoom ndax seen 17 heures la ñuy yow di lijjanti seen bopp di signé seen i convention ma loolu moo metti ba donc ñu dara ñu voyage dem fële sax. dee leen déglu ana booy boobu noonu dem na fële lu mu tudd états ñuy dem ci réew mi. léegi wuyu ma léegi léegi léegi Gaynde Maki Gaynde Maki na wax. waaw vianna leen. tëj ngeen seen tëj ngeen seen micro bu kenn di wax ngeen tëj ko ñu déggante. ziar naa leen man ku ma ci gën a en mooy Magdi di laa ci gën a en Magdi du day signaler compte yi day tëj compte yi ci politique ndekete yoo xeexalul mm. yi boppam lay xeexal. salaamaaleykum ñi nekk prison ñi nekk prison di moo leen tëjlu ñi dee Magdi moo leen raylu parce que mooy def ay vidéo di tuumaal gor ñi di sosal Macky Sall di sosal sénégalais yi yemul sax si Macky Sall ay waali se ku ne lay dugg di jaxase ak sénégalais yi mag Magdi tey nga ne da ngaa jaay sa ngor yow da jaay sa ngor ndax 100000 francs chaque semaine xaw ma chaque jour. yéen yéen ay bu la neexee ñu fay la ko weer nag. dara nag waaw ñoo ay mbaam lañ surtout maa mag di. vrai mbaam la di xasaa mooy mbaam bu ndaw bi kii mooy mbaam bu mag bi ñoom ñoo diriger booy yi am na ñoo xam ne innocent lañ xamuñu dara ñoom ñoo leen jiite imbécile yi lii ah, Adama wax la dara lii du politique kese de ñun ñu nekk si pouvoir yi mënuñoo am chaque jour cent mille kenn fayuñu kon waa ji nan la mënee am chaque semaine cent mille wala chaque jour cent mille lii du politique kese nañ ko gëstu ba ci biir am na lu ci rax. ñoo li nga xam ci réew mi dañuy sàcc rek. non mais c'est bizarre. yow nga commencé déclenché non non xaalis mi yàgg na Ablaye Sylla da nga xam mooy kat yow jii tey la waxoon jaar jaaroo Ablaye nga bàyyi àdduna Ablaye Sylla di milliardaire. sàcc war a sàcc ci état bi jël nañ ko ba pare dañuy séddale rek. loolu kay yomb na. léegi nag léegi ñu ñëw jël ay innocent yoo xam ne ñu ngi woon seen yoon dañuy séddale rek non c'est bizarre non man moom man moom mag di moom ku ma ko mën a dóoral yat ma fay la xaalis. yow nga ne am ah, da nga am une dent contre mag di mag mag di. waaw xaw ma mag yi xaw ma mag di dinañ teppi uy. non non bi du mag di kese de da ngeen a war a wax si li nga xamante ne. ci la bokk ndax moom doomeeraam la. non non mais xam nga non non mais bu bu bu leen singali ñëpp rek benn nit rek naan mag di mag di mag di xam parce que il faut que. lu jiy ñaan mooy ñaan di comprend ay nit suñuy waxtaan dañuy waxtaan pour ñu jëlee si solution ak jéem a jeunesse population bi te bañ a bàyyi lu ñëw rek fëkk leen yóbbu xam nga luñ leen wax rek ñu def luñ leen wax ñu topp. si dal ànd maa ngi ko lëfal day rek la amul leneen. kase luñ leen wax rek ñu topp si liñ leen. wax ni topp si topp si topp si jeunesse sénégalaise bi dafa war a yeewu ñu war a def seen bopp ay nit te bàyyi ñii ñu topp nga xamante ne fii ñu tamaate potoor bu mag bi ko si seen uy naam asalaamaaleykum maa ngi lay ziar Adamo maa ngi lay ziar képp ku nekk si live maa ngi lay ziar yaa ngi si jàmm sant ak Simon Ngom ako gore Simon Simon ako gore sama Simon sama Simon bàyyi eh comme ça. sama Simon yi dañu woo waaw waaw. sama Simon yaa ngi nii. dañu woo ñu bëri Adama naa la dégg. yaa ngi si jàmm. sant yàlla alhamdulilah. baabu moo gore de dañu woo ñu bëri. Jumon Afia woo nañ leen. Eh, déggal kooku naan a yem. astafurlah soxna si yow ni eh, Jumon waaw Adama. Jumon wax ñu ah. expliqué ndax woo nañ leen ñoom it. aywa waaw man lu si wax mooy woo ñu ko influenceurs yëpp ndax ñun ndax ñun nekkuñu fi comprendre nga di def loo xam ne tey ñu ñuy seetaan da ñuy xeeb ndax mille abonnés rek yombul waxuma nga dem ba am abonnés yoo xam ne nii tey tey noo munti mel ñoom la kon tey bu leen musa war alal bu mu tax nga leen di war man côté boobu laay waxee waxe ma si côté boo xamante ne nii damay cuub ñi nga xamante ni samay mbokk influenceur nañ ñoo bokk liggéey bi wara man du man man man du ma cuub du ma yàq der côté bu may waxee mooy ñoom jël nañ li nga xamante ne nii est-ce que ñoom leer na leen ni woon affaire de politique la ndax gars yi seen xel neex na neex boo xam ne mun nañ la mun nañ wax ak yow côté boo xam ne du la leeral ni politique la. mais ñun balaa ñuy signé contrat bu doon Adamo balaa ñu koy signé dañ koy jox suñu avocat. Zimo Afia buñ la joxee document boo ko liiree da xam ne lii li nga war a xam nga ko defu leen. waaw je sais loolu dëgg la bu ñu woowee téléphone wax ñu da ne leen nan lay demee ak naka la ñu ne ñu doo doo amoo droit ànd ak benn politicien six mois man ci laa xamee ni rax na. waaw kay kon leer na mi ngi noonu nag. ndax man bi ma déggee loolu loolu laa gis sa contrat ba nag terrain bi loolu laa bëggoon a wax sénégalais yi. voilà man Adamo bu ma déggee loolu si laa xam ne kon rax na affaire de politique. waaw ndax fi am nga droit faral ku la neex am nga droit ànd ak ku la neex merci beaucoup loolu laa leen waaw. man am naa droit ànd ak ki ma neex ne man kii laa bëgg mu doon sama président. te hmm. damay ànd ak moom. yaa ngi may dégg affaire yi si xol la du la cent franc war mu fay la un million loolu yow la. léegi yow ba nga gisee ñu bindal la ne la amoo droit ànd ak beneen politicien nga ne déedéet nga ne na lu ci la xaas si ñëwoo. waaw dama tax man aw ma droit dugg si loolu quoi. waaw kay. voilà mais affaire da wax yu ñuy wax yu bari yu si biir yoo xam ni ku nekk mi ngi wax man j'aime pas ma si loolu. Simon ah, eh, Simon Simon da nga war a. waaw gën ko leeral la ndax ñi lay seetaan dafa bari. waaw dafa war a gën a leeral ñi lay seetaan dafa bari. mais li ma fi wax li ma fi wax. dama bëgg dama bëgg problème Sénégal team Sénégal yéen ñëpp team ka ngeen enregistré lii nga xam ne nii Simon Afia koy wax parce que li muy wax dafa am importance dafa am dañ ko woo mu ñëw ci moom comme nit woowee nit ñi commencé waatal à zéro tëj leen micro yi Simon ñi ngi lay déglu Sénégal ngi lay déglu mais Adamo man li ma wax leer na waa Sénégal yow li nga wax loolu moo am si affaire yi affaire politique la ndax ñu ni la demal ñu ni la doo ànd ak kenn ba muy six mois doo ànd ak benn politicien mais loolu loolu doo ko déggee di nga xam ne lii yaa a quelque chose mais ñu ne am nga droit doo demee ba si biir nga retiré wu. am nga droit boobu tamit. ok dégg ngeen. waaw yi li ma leen doon nettali. Mhm. maanaam contrat bi dan la koy jox ne la amoo droit ànd benn homme politicien ba six mois yi jeex su ma loolu la gis xam ne am na lu ci rax mu ne du signé. fii ba fii fii ba élection yi waaw. noonu la demee. las gaañ gaañ mais yow nag fenn laa la meree man yow fenn laa la fi nga ne fi nga ne. influenceurs yëpp jaay nañ seen ngor non du ñëpp. sànq sama vidéo bi ma doon tontu looloo tax ma def mais deux cent soixante trente yi dañoo bëri nag gars yi ñin jël bëri de. mais dëgg la mais am na ñoo xam ni dañ leen ko wax defuñu ko ku ci mel ni. xalaat ma ne xaw ma leen sax moomu duggoon démb sa live dañ ko proposé même chose kon ñun lu ñu wax nanguwul dafa arrière. ah day na waat affaire yi daal keneen ak keneen. waa léegi solution bi daal la solution bi lenn ngeen dem désabonné wu ci ki nga xamante ne bokk na ci loolu mu désabonné dem désabonné ci. désabonné wu nag déedéet non non. ah waaw donc même ñëpp dem désabonné wu. non rek. désabonné rek ñi nga xamante non jumeau. désabonné rek képp ki nga xamante ne bokk na ci mbiru yooyu noonu c'est na gars yi dem. waxuma désabonné rek saaga day yàlla ñu bokk ci biir loolu mooy xeex bi parce que tey lépp. lu ñu am wala da ngeen di dem si xam ne bokk nañ ngeen mais mais ñun nga xam ne bokk ñu. léegi simon Zimon def lu a neex. ah waxuma yow léegi Zimon léegi Zimon waaw la Zimon. waaw maa ngi lay dégg. xam nga tey ku mel ni man. man ku mel ni man maa ngi ci TikTok bi am naa si doole ñu ñu may seetaan mais ñëpp xam nañ ni man damay politique président Macky Sall laa àndal. waaw mais ki nga xam ni tey dafa ñëw si TikTok bi mu ni moom day yee ndaw ñi. waaw ki nga xam dafa ñëw si TikTok bi. bu ndaw ñi defee dara mu naan leen ndaw ñi déedéet amoo leen liggéey wala mu naan déedéet ndaw ñi lii na da ngay wax ndaw ñi nan lañ leen di jàppalee mais tey ñooñu ñoo yolleeku laay wax man ñooñu laay kaasa mais man sax ñu ndaw ñeeg ñooñu catégorie gu ndaw gi sax man taxuñu may wax mais ñi mag ñi doon gëmloo ndaw ñi ay mag bi ak ñeneen ak ñeneen ay ñoom xasaa ñiy gëmloo ndaw ñi dëkk bi ndaw ñaa ngay daw dëkk bi amul liggéey te ñoom dix-sept heures la ñuy yeewu ndekete ñu ngi ut ay contrat suuf ñoo ngi signé ay convention ñoo ngi voyage yi ñoom la autorité yi di recevoir ñoom la ñuy jox ñuy lekk di dem fépp yor seen i salon liggéeyuñ defuñu dara di nax ndaw ñi man loolu laay kaas nañuy wax ndaw yi dëgg buñ toogee ñu naan tey jii ñoom waa ji leen jox moom dañu xaalis bi buñ ko waxoon ni ko may ñu ku ne deux personnes liggéey lay joxe rek yomb na ku ne deux personnes léegi deux cent trente influenceurs ku ne bu jëlee deux personnes ñaata jeune la nañu waxtaan calculer la liggéey dafa amul sax loolu du liggéey influenceur non xaaral rek non dañuy liggéey la dama dañuy waxtaan soxna si dama ni tey ñoom ñi yëpp am nañu ay convention ay politiciens mais tey kenn ku ne politicien boo mos a toogal boo nee ko may ma trois jeunes wala quatre jeunes kon lépp avance mais duñ ko def de buñ toogee xam lu ñuy lijjanti bu ñu recev ñu recevoir leen signé leen convention ñu jox leen ñu dem seen yoon mais seen xel pour utal jeune bi jeune yi liggéey mosu seen nekk amul kenn mosu amul benn jeune bu ñu utal liggéey seen bopp rek seen bopp rek man loolu laay kaas mais comme tey ay ñoom man gis naa influenceurs yu ndaw yoo xam ne du ma leen wax dara parce que ñooñu taxuñu ma mais man ponkali na ci kaw di lijjanti seen bopp di gëmloo jeunesse bi loo xam dara du ci dëgg. man loolu laay wax ko waaw. Zimao yeegalil. waaw Thierno yow li nga waxee côté boobu d'accord naa yow côté bi nga waxee loolu ñoom la mais man ak Zimao duñ taalee suñu téléphone jeunesse bi moo tax ñu taal ko. xaw ma keneen ak keneen lu tax nga taal sa téléphone ndax yàlla dafa dogal pour ñu toppaat ay son sax di ko TikTok problème la. yow Adji Mass moom ma ma tontu Adji Adji katal sa ndey génn fii jaay nga sa ngor topp nga Ablaye Sylla jaay nga sa ngor. bi te may ah ak sa data damay bloqué sa tuunu ndey de. yow Ablaye Sylla xanaa dalay kat di la juutal yow nga naan bu ma duggee ba saaga la yow fii da fee mën a dugg ba may saaga damay pentu sa lëfal ndey def ko drapeau Mauritanie laa la si moom as continuer allo Adamo. man Adamo man man lu may leeral rek pour après ma génn quoi comprendre nga mooy ñun jumeau affie ñun seulement ñun jeunesse moo ñu ñor man man man man kii bi politique yi amul ku ñu woowul ñun amul si saalu ku ñu toogul damay bañ a lim tur mais amul fu ñu toogul te waxtaan nañ ak ñoom fu la ak fayda génn dem ku ñu si woo nag pour jeunesse bi ñu ñëw ànd ak yow pour jeunesse bi ndax ñun ñooy toog ak jaaykatu café maam booy jaawa moom demoon ngeen fa yow demoon nga ci maam booy jaawa ñuqali demoon na euh, Cheikh Senghor demoon na euh, kii demoon na kii <laughs> demoon na yéen ñëpp seen dossier yi ci man. waaw yéen ñëpp ma ku la woo nag di nga dem wuy waaw kay yéen ñëpp demoon ngeen ci maam booy jaawa te xam nga lan moo tax maam booy jaawa jubóo ngu leen parce que gars yi dañ doon laaj xaalis te maam booy du joxe xaalis comprendre nga loolu moom leer ah man loolu leer moom non dégg ko groupe groupe bi ngeen bokkoon ñu dugal leen fa group bi laa yore nii liste bi groupe WhatsApp. Adamo man dama lay leeral man du ma ci dellu ginnaaw. waaw xam naa ko. Eh, Adamo est-ce que la def ministre de l'intérieur yow. nii laa ko téye Sénégal que. man du ma waxantu li may wax day fekk ma xam ko man du ma taxal nit. mais Adama dëgg la ma waxal da may bàyyi ma wax du ma paree nga wax. daa mel ni si la bopp yow demal si moom daa mel ni ma soxna si si. Ah. Zimo xoolal Zimo eh soxna si man Zimo yi xam nañ ma man wuy ma. man soxna si man damay politique man la job laa xam la job ba ma njëkkee toogo moom bureau am la ma may sama koñ vésel ma jëlal ñuy liggéey sama koñ reyante naa ba am na ambulance am na échographie moo tax ma ni dara président Macky Sall leen lafal ndayam ci commentaire yi rek moom moo jiite affaire yi mag ci Ablaye Si a nekk tëdd liste ma bi moom mooy joxe xaalis bi di finance suuf ak ak benn gel aji maas bi moo gën a katt ndayam si moo eggaleen bu ko faale bu ko faale. Adamo man man lenn laay leeral génn man Zimo Afia jeunesse bee ma ñor ndax ñun ñooy toog ak jaaykatu café bi ñooy toog ak ñuy ataaya ñooy toog ak ñuy toog si bureau bi ñun ñooy toog ak ñëpp xam nañ loo xam ne métti na leen te jeunesse bi lu ñu soxla lu ñu soxla dañ leen koy jox du leen ko mënul jox ñu bàyyi leen ñoom ñu def lu leen neex affaire nag yoon bii ñu jël ñiir di jël ci gaal gi ñii jël fu nekk lu ñuy dund moo métti yaa ma dégg dañ leen a wanul dañ leen a wanul yoon bi dañ leen a edewul dañ leen a dimbaliwul moo tax ñuy jël yoon bi duñ jugee taxaw di wax naan si xale yi waruñoo jël gaal gi ñoom ñoo ñu jiitu xale yi ñoom ñoo ñu war a jox bon exemple boo xam ne xale yi du mun a xool beneen yoon bu dul dem di liggéey man loolu laa gëm man dama gëm ni tey doo taxaw ne yow nga jéem a teg xale yi si yoon wan leen xale yi nii nañ war a doxee mais pas nga ñëw di pas nga ñëw di affiché di bi pare di liggéeyal sa poste loolu c'est pas looloo ma métti looloo tax may dal loolu aadamoo du la méttee yow yaa ngi koy li compte yaa ngi wax jeunesse bi ñu ngi lay dégg. ñi ànduñu ak yow. mais man simo Afia personnellement. yaa ngi may dégg politicien bu ma woo man Zimo ah dinaa ñëw toog. déglu la nga wax nga wax ma déglu la li nga wax. du ma arrangé non non ko baax la Zimo moom wax ma ànd ak yow jeunesse bi. taxul ngay wax ba jub dañoo sonn ni dañuy ñëw di ramasser xale yi di leen jënd dëkk bi dafa corrupted maanaam dañuy jël xaalis jënd nit ki yow benn saaku ceeb nga am benn saaku soble mu jeex tàkk leen am nañu dafa war a avancer lii mooy lan ba kañ salaam salaam salaam guys mën naa ko vite ñun may leen Didi waaw salaam gars j'espère que yéen ci jàmm Adamo maa ngi lay nuyu franchement li ngay def ça à saluer quoi parce que c'est un geste très noble yaa ngi jàppale jeunes yi bu baax mais en fait man nekkuma sax Sénégal ah, ah jumeau mën nga tëj sa micro s'il te plaît. nekkuma sax Sénégal maa ngi Canada mais gis nga parrainage yi à Adamo gis nga corruption bi c'est partout. boo bëggee mën naa la yónnee après message du ma wax nag turu politicien bi comprendre nga parce que ci live laa nekk man dama yor sama business maag sama mag donc ce qui veut dire que salon de coiffure la ñu yor. sénégalaises yu baree bari ak yu baree bari salon ba la ñuy ñëw di coiffé wu donc xam nañ ni que suñ ma approché mën nañu am parrainage bi ñu soxla mais malheureusement man xaalis fëkkuma comme xam nga dama yor sama business te yàlla mi ñuy jàppale bu baax a baax ba mu waxee wax ma proposé ma li may proposé xam nga dama ko ne sëñ Benoît ma ne ko man doxuma ci loolu ñun ak sama sœur xam nga lan la ñu mën jàppale jeunes yi nga xam ne dañuy dugg ci Canada bees pour teg leen ci yoon wax leen nan la ñu mën a def ba am permis de travail wax leen nan la ñu mën a def ba liggéey parce que dëkk bi dafa metti léegi nag politique bi lan la dañ ko bàyyi en fait nañu dem ku mun sa moroom gagné mais dañu mm-hmm. war a arrêter corruption bi ñuy def comme mm-hmm. xam nga di bëgg jënd nit ñi laaj la nombre de carte d'identité pour jox la benn montant bi ma ne ko sëñ bi ma ne ko gis nga montant boobu nga mën a ma liggéeyee deux jours damay am bi donc man je ne ferai pas partie des des des gens yi ngeen di corrompre gis na nag influenceurs yi nekk Sénégal mais ñoom ñoo war a dëggal ne dañ leen a corrompre jeex na assumé mais du ñu duuf affaire bi di mais exactement mais xam la moo ko waral ah mi la moo ko influenceurs yi nekk Sénégal dañu bëgg lu yomb parce que xam nga la moo tax dañu bëgg yor appartement. amuñu benn métier. di sañse di teg kër bu rafet restaurant restaurant ñu dem fa. voyage ñu bëgg fa dem te doo liggéey mais loolu mënul nekk. benn ngor. exactement ñun ñu nekk nii exemple Canada bi ñu nekk ñëpp xam nañu dëkk bi yombul mais dañuy fight suñu life pour am loo xam ne ñoo ko moomal suñu bopp liggéey à la sueur de notre front ñàkk jëriñu loo xam ne boo ko yëkkat di ko jox say parents wala nga koy fierté parce que di nga xam ne xaalis bi da nga koo liggéey sàccoo ko cagatuwoo ko kenn déglu ko. yow soxna si soxna si soxna si si ma laaj la benn question rek. benn question laa lay laaj nga tontu ma ci. influenceurs yi ñu naan ay influenceurs nekk Sénégal ba xam mhm. kan nga si mës a gis kontam mu naan jeunesse bi yéen jeunesse bi nga xam ne yéen a jàng dëgg la mën ngaa jàng mais yéen nga xam ne jàngoo leen dem leen ngeen uti métier diplôme ba leen utee dem fii dem fii dem fii di ngeen mën a am ba xam gis ngeen ñu yox yooyu déedéet amul bëggante fekk foofu loolu loolu am sens bouclier bouclier xam nga la moo tax loolu ah parce que jeunesse bi intéressé wu leen ñoom seen intérêt ñu xool c'est day metti bopp ñii duñ influenceur kat influenceur boo influenceur boobu mel ni gars yi xamuñu ko quoi Adamo eh? xoolal gis nga fii ah Canada xam ngeen boo influenceur yéen Adamo xoolal gis nga récemment amana di fekki di lalax di wëngalu rek defar ba jeex naan kay eh. mais effectivement ñu ne influenceur nga effectivement boo dee jeex sarab day lii rek gis nga Adamo xoolal gis nga récemment ñëpp xam ngeen ni influenceur ah. Adamo yow yow yaay yow yaay exemple influenceur yow Adamo. merci parce que Adamo mi def liggéey boo xam sax euh, saluer gis nga Adamo récemment soxna si ah? soxna wa waaw mhm. ma posé benn question soxna si benn question waaw parce que bari amul ndax def ñoom ñëpp ñu abonné ah, seen seen compte YouTube sax xamoo leen ko Sénégalais yi ñoo war a am fula dem désabonné mais bien sûr. mais yéen nag kii day wax ko dagg ngeen mel ne ay seko. wala ma wax kenn par kenn par kenn. exactement maa ngi doon wax ci benn point bu am important. eggaleel boobu. c'est ça dama leen doon wax ne leen en fait récemment ñëpp xam nañu que Canada macha allah dañu doon may ay visa parce que dañu soxla ay liggéeykat. donc man message bi ma lancé woon ci TikTok bi xamal la ku ci bëgg man yàgg naa ci dëkk bi am naa fi expérience te yàlla may na ma tam xam naa ay nit li ma leen waxoon nan la ku fi dugg si bëgg permis de travail man boo ma bindee amul benn problème wallahi azim aadamoo xool laaju ma un franc mali kenn parce que xamal la dëkk bi ku fi dugg lañ laa jàppale donc man ma jàppale nit ñi ça ma en fait wàññilu ma dara au contraire dafa may yokkal ku ci bëgg permis de travail ku ci bëgg xam nan ngay def ba ñëw Canada man ça ma fait énormément plaisir ma jàppale nit ñi defuma ko pour séntu ci quoi que ce soit parce que comme li ma wax encore une fois yàlla teral na ma maa ngi am sa bopp te maa ngi tedd ah am nga jëkkër <laughs> aadama aw ma jëkkër <laughs> waaw jàppaleel kenn mu ñëw doon sa jëkkër saaru bukkile yi man man non bukkile <laughs> man loolu mais day fekk ñu nobante waaw léegi daal noonu nobal kenn rek indi ko. loolu jaayu ma ay tey de loolu Adamo chaque jour ma am proposition ñu may bind naan dama bëgg nga takk ma ma fay la defaluma ko kenn. Hmm. man ku may may kayit day tax ma bëgg la nga ñu nga bëgg ma ñu bëggante ñu sëy ci farata yàlla ak sunna Muhammad jàppalante man ak yow mais jaayuma kenn kayit ay dix mille dollars vingt mille dollars cinquante mille dollars sax taxul ma jaay samay kayit léegi nag bu amee koo xam ne maa moom dañoo gisante bëggante te yàlla rek a tax man ça ne me dérange pas foo nekk ci àdduna mën naa laa may papier nga ñëw ndax passeport canadien bi ma yor aadamoo xolal passeport de hmm. voyage ba voyage laa koy génne de amuluma benn njëriñ mi ngi ne waaw kay léegi nag jëm cee amal njëriñ kenn nag ku nekk Sénégal sonn di maçon nga jëlee ko foofu feeraay yi indi leen. xamee ku baax Adamo wóor na yàlla présenté ma ko man loolu amu ci benn problème. naa la présenté ku naa abonné naa abonné ci yow jël ci suuf jox la ku baax a baax ku sonn. nga dimbali Adamo muy ma ku baax waa bëgg ku sérieux ku sérieux laa wax nag. laa lay may abonné naa ci yow. abonné ci kon mën naa la bind. waa baax na Adamo Adamo Adamo. Eh, mais Adamo. baax waaw. allo Adamo. léegi nag may leen presse mu wax presse waaw. waa léegi man xoolal Adamo man. man damay tuddee nii. dafa am dafa am li may wax. mooy lépp li ma fi wax nag. kenn taxul ma wax ko jeunesse bi moo tax ma wax ko doo mere war a nga kontaan loolu yow la lépp li ma wax lépp jeunesse bi moo tax ma wax ko. yow joojo kenn du turu kenn yow amul ku lay mere. waaw damay leeral rek. ndax man ndax man ki ma àndal mi may dimbali muy Waly Balago Seck sam papa. mbëtë buy jël deux millions lu ma jëndal moo ma yor manqué wu ma dara ñàkku ma dara. man si moo ànd loolu la may leeral. maa ngi na de. presque bu xam Fares Mouhamed ñu ngi lay déglu. c'est que daa bari wax quoi doo may gars yi wax. ay déglu yi ñoom dama bëgg ñuy dégloo mu neex. ah waaw mais da ngay wax ji tamit. waaw Aca ngi lay déglu. may wax ah yi ñu dem déconnecté si compte yi parce que ñooñu ay doom surtout mag di mag di laa gën a en man mag mi parce que mag di fi yàq mag naan tey. dafa dem encaissé ay cent mille loolu du yoon parce que yow ñii nii ñu mel jeunesse bi moo tax ñu mel noonu. yaa ngi dégg jeunesse ñoo tax ñëpp xam leen moo tax gars yi woo leen di leen proposer loolu noonu parce que am na ñoo xam ne ñu ngi fi ay influenceurs lañ te déggoo leen sax ci lool gisoo leen ci loolu ay bu dee tamit cent mille cent mille francs yow tey jii nii mag ji mënatul wax dara loo xam ne gaa yi dinañ ko dégg. mag di ma mënatul wax dara loo xam ne gars ko dégg parce que mag di yow attaqué na fi façon nit bu nekk tey mu ñëw war nii jeunesse bi ah loolu dara ma si ma si wax moom vrai raam la mag di mi. li nga wax dëgg la de jërëjëf. waaw. Ah. jërëjëf presse. Wéli ñu ngi lay déglu. Wéli. ubbil sa bi. Wéli. Welisu waaw ah, Welisu moom ndax wér na moom Queen ñi ngi lay déglu. waa Adama waa di rafetlu ko rek vraiment di rafetlu ni ngay taxawo jeunesse bi vraiment ah parce que mag di moom vraiment daf ma bett trop. jëkkër ku baax. ku baax moom vraiment ku baax moom dañuy moom vraiment dañuy turu influenceur rek lañu.